waaw je pense bien que comme ni nga ko waxee à euh, situation exceptionnelle mesure exceptionnelle au niveau de la rédaction de la DTV aussi nous sommes adaptés li nga xamante ni moom mooy actualité bi d'ailleurs émission yëpp dañ ko def aux couleurs de la lutte contre le Covid 19 saa suñu yeewoo rek am nañu benn émission boo xamante ni ñu ko tuddee le point du jour muy émission boo xam ne man maa koy animé dañ koy def en partenariat avec le ministère de la santé et de l'action sociale ñuy xool li nga xamante ni mooy tolluwaayum euh, lii di mbas mi fii ci réewum Sénégal dañ koy xool buñ toppee li nga xamante mooy le point du jour bu nu paree ñu daral fii ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci benn euh, domaine bien déterminé buñ ci jógee à partir de 14h30 li nga xamante ni moom mooy euh, ñaari waxtu ta toftal fanweeri simili non beneen naataango day ñëw moom tamit def point bi mais plus ak ñi nga xamante ni sont au niveau des régions ak ñi sont au niveau de la diaspora bu ñu dikkee à partir de 17h aussi pareil émission bi nga xamante ni toi minutes sa lañ ko tuddee di benn talk show bu am solo moom it euh, liñ ciy wax plus ci wàllum corona bi lañ ciy wax mun fa jógee aussi ba ci guddi si yëpp dañu occupé daal en tout cas li nga xamante mooy l' espace médiatique le temps des des parce que nit ki boo nee ko toog leen seen kër aussi il faut nga am loo ko occupé bref daal lool daal grosso modo loolu ñu def ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi. rédaction bi li ci ëppoon ci ay journalistes dañ toog seen kër ñañ wàññi en tout cas ñu ñenn ñi nga xam personnel non essentiel bi ñu bàyyi leen seen kër souvent ñu ñuy remonter lépp lu jëm ci wàllum ay information à travers donc les réseaux sociaux ou bien li nga xamante ni mooy WhatsApp ak yooyu. di ci dikk euh, leneen li moom mooy am na ñoo xamante ni aussi ils sont obligés d'être ñoom bu ñu ñëwee bu ñuy dem sur le terrain en tout cas équipé nañ leen jox nañ leen équipement bi war ci ñoom pour bu ñu demee sur le terrain ñu bañ a exposé wu parce que bu ñu exposé wu ñun dañuy exposé wu donc il faut que mu am ñuy dem sur aussi di dajeek nit ñi di nit ñi xam jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askanuk Sénégal di dund ci jamono ji lay pour mën ko ne serait-ce que même remonter fii ñu mën ko gis à travers la télé le gouvernants éventuellement mën a rectifier le tir s'il le faut. gannaaw bi nga ñëwee bi daan bala ngeen di yéeg gis ngeen que ni fii kenn du fi dugg solo masque lool bu njëkk la masque da nga koy sol c'est obligatoire dinañ la defal li nga xamante ni mooy gel hydroalcoolique yi boo ñëwee fii même au niveau de la rédaction boo fi toogee ñëpp bu ñu toogee nii dañuy sol masque obligatoirement loolu moom ce son des des mesures yoo xamante ni dañ koy respecter à la lettre yeneen yi n moom mooy la distanciation sociale. dañ koy respecté au niveau des plateaux plateau yëpp la ñu adapté yëpp dañ ko wàññi euh, au maximum tey jile boo demee ci plateau yi nga xamante ni da daan def huit neuf dix personnes dañ ko xaaj ci digg bi boo ñëwee Trois Minutes tu sais tey jile fexe nañ ba wàññee ko fi nga xamante ni dix personnes wala onze ñoo fa daan nekk tey cinq ñoo fay nekk présentateur bi day nekk fële euh, rubricaire yi nekk na le donc ñu respecté daal distanciation sociale de sécurité boobulee bokk na ci li nga xamante ni jël nañ ko ci ay mesures ngir fexe rek ba xeex ak loolu nga xam mooy Covid 19.